dikkati naa mbaadu président Macky Sall day dafa taxaw taxawaayu tama en tout cas réew mi moom ñu ngi koy tëggee ñaari boor l'évidence yéen kaay ne ma njàng ben njàngale mi moo ci njëkk waaye tam gaa yaa koy tongal ci nag mu daal di criminaliser ngóor jigéen ci réew mi yéen kaay yëpp des média bi turbine xamal ma yi kenn du ñoom ci teg fitna Macky Sall jamono jii turbine ne ma xoolal ma rek président jébbal na leen juróom-ñeen fukki milliards ci suñuy koppar waaye syndicat yi ne nañ ko déet bëgguñu fi ne nag yéen kaay bi ne ma grève bi day daal di wéy te enseignant yi yemuñ ca dañoo jël pression nag teg ko ci kaw nguur gi Sénégal yéene bi ne ma gréew bi waajul sax ni day bëgg jeex jàngalekat yi nee ñu mbégte amagun ko ci lépp loo xam ne gouvernement gi jébbalagum na leen ko syndicaliste yi ne ñu waxtaan ak seenu base ba nuppi ak képp koo xam ne ñi ngi séq ak ñoom gréew gi xool nag juróom-ñeen fukki milliards yi lu luñ ci wax organisation yu bëri ñi ngi dal ci kaw jàngalekat yi saa si tembe ne leen liñ leen jox nañ ko jël muy seen muur ak wërsëg waaye nañu dellu ci classe jàngal suñuy doom Dakar Times ne bu yàkkamti baye boo nga toog te xam ne diggante jàngalekat yi ak gouvernement gi seen coow li jeexagul faaw wax waxtaan wu xóot daal di am ci yenn ciy négociation le quotidien le quotidien ne coow li kay dafa mujjee nag jéggi dayoo mel ni luy nuru leneen nguur gi nag lu takkoo takku la bëgg a jébbal jàngalekat yi jàngalekat yi ne ko doyul SAEMS ak CUSEMS e teg ci di wéyal seenu gréew Abdoulaye Daouda jàll ci direct news ne la ñu mënoon lépp defal nañ ko jàngalekat yi ci wàllu proposition dooree ko nag ci xool seeni prime faf ñu tuddee ko ay performance scolaire ndàmpaayu jàngalekat yi ñu yokk ci téeméer boo jël juróom fukk ba juróom benn fukk contrôle ak encadrement ndàmpaay li yóbbu nañ ko téeméer ak yeneen ak yeneen yokk goo xam ne direct news mi ngi lay xamal ne jàngalekat yi yokkal nañ leen ko Sud Quotidien xamal ma ne round deux de lañ tollu woon ci négociation diggante syndicat ak jàngalekat yi waaye nag saafara mujj caa juddu fa mu taxawoon coow la ba tey daanaka jugewu fa wala bu fa jugee dafa am saafara bariwul jàngalekat yi nee ñu baas ba rek faaw ñëpp ñu seqaloon grève yi xool ba xam lii leen gouvernement gi proposé ànd nañ ci am déet fi mu ne alxamis lañu joxante waak dig daje ñoom jàngalekat yi ak gouvernement gi ngir waxtaan nag waxtaan wi mujj xool yooyu leen gouvernement gi defal daan ci ànd am déet waaye tam buñ ca àndee leen leen bëgg nekk yokkute waaye jàpp leen ni ba tey suñuy doom ci mbedd bi la ñuy xëy njàng meeg njàngale mi dafay wéy nekk ci grève Sud Quotidien ma Moustapha Diakhaté day ma ngay tuumaal gouvernement gi ne nag ñoo yàgg digeeg jàngalekat yi duñu deful waaye tam ma ngay ŋaaññi jàngalekat yi xamal leen ni ne ñu teg seenu baaraam luñ leen jox ñu ne doyu li doxut 24 heures yéeni kaay ne ma dañoo nekk ci réewum Sénégal boo xam ne day saa si tembe askan wi ci boppam ñoo xam seeni bëgg-bëgg askan waa yeewu te askan wi it ñooy jàmbat yi nag jàmbati leen ciy mujjë weñ loxol président Macky Sall fan koy jaaraleeg fa jaar président Macky Sall nag war a diglu askanam xool seenu njàmbat nafar ko tey daal ci sol dàllam ngir xool nees koy saafaraa événement mars 2021 yi wan na président Macky Sall ne ko askan wi jamono ji bokk nañ ciy dogal élection ak imposture yi politique yi wan ñu président mak Macky Sall ne ko réew mi am na leen lu koy doxal criminalisation homosexualité bi nga xam ne ñoo ngi koy yuuxu ci réew mi président bañ gaay te tëcc war naa wan Macky Sall ne ko askan wi day bu nu mattee daanaka dafay dagg 24 heures yéene kaay ne ma lanu jéppee français yi nag fii ci réewum Sénégal président Macky Sall jëm leen a yey ba sonn askan wi ne déet bëgguñu nasaraan si lii war naa yee président Macky Sall politique bi léegi dootul ay digade politique bi léegi dootul weñ loxo 24 heures yéene kaay ne ma politique bi léegi mooy Sénégal goo xam ne dañ koy tabax dak def comme réew moo xam ne fii la dund neexee coow li lëmbee réew mi te sonal président Macky Sall mooy coowal criminaliser ngóor jigéen tribune yéene kaay ne ma démb day manifestation bu rëy moo amoon ngir na xeex wàllu ngóor jigéen sàmm ji koy ni président Macky Sall lii ñu bëgg daa nga ñu ko defal ndax nag fii ci Sénégal criminalisé nañ fi viol fii ci réewum Sénégal criminalisé nañ fi drogue lan moo waral nag président Macky Sall lànk ne Sénégal gii wàllu ngóor jigéen kenn du ko fi criminalisé te askan wi yëpp jugandoo xamal président Macky Sall ni ko ngóor jigéen baaxul benn diine nangu ko te ñun Sénégal bëggunu góor jigéen lan moo tax président Macky Sall bëgg ci ànd ak askan wi seenu bëgg-bëgg googee le quotidien le quotidien ne Sénégal day campagne ñu njaayum gerte mi ren doxul te gaa yaa ngi koy jiñ Sonacos source a xamal ne jafe-jafe yeneen ñun am ci réewum Sénégal day mooy dund gi dund gi metti na ba jeggi dayoo ba faf sax nag yëngali sëy mbaaco moom xam la ci yéene kaay bi ne ci benn ak ayu bés soble sa doon jar téeméer léegi mi ngi ci téeméer ak ñaar fukk pomme de terre ga doon jar téeméer mi ngi ci téeméer ak juróom fukk suukar ñu yokk ci juróom moo tax nag sama waxtaan ak sama xaqataay sama digg sama borom kër bareetul nday muur ne sama borom kër moom ayu bés a ngi nii waxatuñu ndax nag loo ko laaj mun la li ngay laaj bari na dafa sax nag boole ci naqaru deret ndax njëkki yokku yi le mandat diggante Dakar ak Bamako CEDEAO Diaw day daal dina tëj ràpp Sénégal tëj goo xam ne nag Sénégal moo cay mettile le mandat ne ma sab koo day gaa yaa nga yuuxu ba tey te ba nii amul genn ak saafara goo xam ne juddu na ci le soleil yéen kaay daal di dikkaat ci stade bi nga xam ne mooy stade bu jam ñaajo bu ñu war a dalloo ni ki ëllëg maître Abdoulaye Wade lañu jagleel boobu le stade fas ko ko yéen a tuddee juróom benn ci ay njiitum réew ñu leen di xaar ci inauguration bi waaye tam ay star yu ñu war leen a xaar ngir ab match de gala maître Abdoulaye Wade rafetlu lool boobu le tur tribune yéen kaay dama waaye la nar a yàq bi mooy RTS ak siis gi muy privé yi jaare ko ci 7TV Sen TV ITV TFM Walf TV ak DTV ñoom ñëpp nag dal ci kaw RTS bi nga xam ne daf leen a ah, yéeni duñ bokk ci événement bi moom rek libération yi yéene kaay ne ma moom rek Basiirou Thiam moom lan njort ne moo faat ndongo gay waaye bas day gannaaw bi lépp taxal na ko ba tey nag mi ngi wéy di weddi libération ne ma ca faatu ndongo gay jaare ko ca Rama Kamara Mohamed Sougou Mohamed Diallo maanaam ci lim fukk ci doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan diggante décembre ak février ña leen faat seenu mbokk lañu wala ñuy seen i xarit wala ñuy seen jege jegeñaale réew mi ko dajee ne ma kii day ab soxna la ci biir l'hôpital yi daal lay dugg mel ni apajkat téléphone u malade ba mu fa fekk daal di jël soo noppee jox jëkkër ji mu daal di jaay bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yéen du leen ak jàmm mbokk stade bi nag ki fi nekkoon njiitum réew mi lañ koy tuddee muy Abdoulaye Wade naam liggéey bi sax motul ñaari at stade bi nekk ca jëm ñaajo dina rek dalal match bi nga xamante ne moom moo war a dox ci diggante Sénégal ak Égypte muy barrage ñeel coupe du monde Qatar 2022 mu am capacité cinquante mille places stade Abdoulaye Wade bi nag daal di am ñaari terrain yi nga xamante fa la ñu woo mu amaat itam terrain bu am deux mille places mu am piste d'athlétisme waaye itam am musée bi nga xamante ni moom lañ tuddee dem si yàlla mi di Pape Bouba Diop stade bi daal di am salon présidentiel mu am tribune presse am itam salle média cérémonie d'inauguration bi nag njiitum réew mi di président Macky Sall moom moo koy présider ci noonu juróom benn ci Paul Kagame président bu Gambie di Adama Barrow itam ci la bokk ak président bu Guinée Bissau président bu Libéria di George Weah itam dina bokk ci mbir mi ñuy xaarandi itam président FIFA di Gianni Infantino ci noonee ginnaaw ba Sénégal daal di jëlee coupe d'Afrique bu njëkk mën ñoo wax ne observateur yi dinañ am stade bi nga xamante ne ëppaliwul dara stade yi nekk ca bitim réew. Sadio Aboubacar lu jëm sax ci boobu la stade nag jàppal ne kon lii na des infrastructures publiques euh, coppul urbain bu jam naajo ak euh, Lac Rose en tout cas lu ci mën tam tamit lu jëm ci wàllum immigration mi kon ni ki ëllëg dinañ ci nag amal ab match de euh, gala bi nga xam ne dina nag regrouper les anciennes stars yu football bu Afrique ñu ci mel ni Djindia Okocha Patrick Momba Didier Drogba Samuel Eto'o ak star yu Sénégal yi ku ci mel ni El Hadji ak ñoomi ñoom Fadiga ak Sène kon Mambay boobu mooy stade bu Abdoulaye Wade fi ñu fas koy ne waxtaanee football Ligue 1 mu mel ni kon génération foot jamono ji ñoo samp seen tànk de. waaw génération foot nak kon moom mu mujjee gagné derby bu Rufisque bu doon dox ci digganteem ak Teungueth dara génération foot kon waxtu wi nag moom moo déjati kon di waa Casa Sport ci bopp première place bi naam sax ni ñaari tolloo ay poñ ku nekk am. Euh, Casa dafa def match nul ci digganteem ak ñii di foofu ci stade Aline Sitoé Diatta zéro but partout. choc nag euh, bu tamit euh, am solo doon ndox si diggante Géejawaay se ak Jaraaf bu Ndakaaru ñetti bal euh, trois bi partout la ñu def naam sax ni nag géej Géejawaay FC moom mu ne woon Jaraaf jàppale ne nag juróom-ñetti but la dugal ci nag fukkeelu bëccëg bu Ligue 1 bi ci leeral ñu ànd ci ak soxna. demul ndam dikkul mu mel ne ku ci ne bëggul bàyyi sa moroom nga dem ci diggante jaraaf ak GFC mu mëne woon jaraaf waaye ñoom fexe nañu ba remonté ñetti but écart yi nga xam ne GFC jotoon na ko dugal mu di match bi ëpp but ci bëccëg bile ndax toll na ci juróom benn ku ci ne dugal na ñett boo weesoo loolu yeneen jogante yépp amul ndam ñeenti match nul yoo xam ni kenn dugalu ci but ku ci nekk rek 0-0 nga def loolee rek lañu mën a nemmeeku ci fukkeelu bëccëgu championnat nañ seen fukki lu bëccëg ci week-end bi fukki bu sax la ñu si jot a dugal nag stade de Mbour moom mi la nag euh, gannaaw ba mu defee match nul ci digganteem ak renaissance bu ndakaaru am nag euh, ñaar fukki poñ ak ñaar kon yàpp nañu sax moom waxtu wi nag si ñaareelu place la mujjee ndaxte Wally Daan mu nag moo mujjee nekk ci bopp euh, classement bi euh, ci goal average bi nag la ko robee ndax ci wàllu daan moom dafa daan ñu di waa Dakar Université euh, Club dafa daan Dakar Université Club benn ball ci dara Oslo nekk si ñeenteelu place bi ak fukki poñ Euh, ñaanti moom dafa nag daan NGB benn bal ci dara Amitié FC moo daan Thiès FC benn bal ci dara waaye teewul ñaari équipe yi ba tey nag ñoo nekk ci zone rouge bi jamono bu fatik moom gannaaw ba mu daane nag euh, ñii di waa ISO kon jamono bu Fatick waxtu bi moo nekk si ñetteelu place am fukki poñ ak euh, ñeent jamono bu Fatick moo daan ISO ñaari bal ci dara Port Autonome moo Ndakaaru dafa daan ñii di waa Sonacos bu Diourbel Kër Madior moom dafa lajjee ci kanamu Demba Diop ñetti bal ci dara. jaajëf ñu waxtaanee kon wàllum bëre doo rax nag rëg-rëg bi nga xam ne mujj naa simpi guy gi. waaw kon démb la woon nag foofu euh, ca stade bu lamb ji kon nag rëg-rëg moo mujje am ndam ci kaw euh, guy gi en tout cas mu nekk nag victoire boo xam ne ubbil na ko ay buntam ngir nag mu fekk ji VIP yi comme ni koy waxee waaye nag combat am moom ak euh, Sa en tout cas amateur yu bëri nag gis nañu ne. war na mën a nekk en tout cas tamit boobule combat gis na kii di Ibakan nekk su naataango foofu ci sunu làmb combat bu logique la ko jàppee ci leeral ñu teewul kon xam naa ne Ibakan bi waaw dinañ ci ñëwaat nag euh, ci boobule vraiment wu Ibakan bi nga xam ne ñëwaat na bu baax a baax ci combat bi doon dox démb ci diggante rëg-rëg ak kii di gi ay te ñu kon wàllu tàggat yaram ak wér yaram. waaw wér yaram nag en tout am na solo loolu ci tàggatu gi lu koy firndeel nag foofu ci département bu Mbacké bi nga xam ne daanaka euh, euh, xeetu feebar yu mel ni hypertension artérielle bëri na fa loolu su ñu nee sax mutuelle des agents. de l' état ñoom ñu ne nag amaloon ab randonnée ngir mën a ñaax nag askan wi ñuy nag euh, amal ab tàggatu ci noonu lañ ci teewlu kii di Momi Diop nekk coordonnatrice bu randonnée bi ak euh, Souley Ndion nekk coordonnateur départemental bu mutuelle bu santé bu agent euh, de l' seen kàddu kii di Abdoulaye Diagne ak Ousmane Diouf ñoo ko taataan. boo gisee fii ñu ne Touba bi moo gën a yokk ci feebar ñun jigéen ñi boo amee vingt ans rek wala nga dugg néegu sëy rek foog nga ne waroo si mbedd yi dañu foog la. fekk loolu du dara liggéey am na solo waaye itam boo wéru doo mën liggéey te wér-gi-yaram li koy joxe marche au moins trente minutes doxantu la rek rawatina boo reeree ba pare ndax boo jëmee au moins dugg trentaine jàpp ay cinquantaine yooyu feebar dalay yomb mutuelle de santé wàllu wér-gi-yaram moo tax mu jóg maanaam dimbali agent état bi ci wàllu garab am na solo mais su fekkee ne mën nañu def leneen la nga xam ne xëy ne mën na may nit ñi wér-gu-yaram te du doon wàllu garab ñu ne nañ ci jublu techniciens yi ñëpp ñu xamal ñu ne dox ba nga ñaq dafa baax ci li nga xam ne day joxe biir yaram muy randonnée pédestre bi ñu doon def nii. boo gisee fii ñu ne Touba taw bi. jaajëf kooku di Abdoulaye Diagne ak Ousmane Diouf si taataan kàddu kii di euh, Momy Diop ak Souley Ndione Kaama Mbaye war nga nag euh, toppi nii ah, xam naa ne temps yi moom tàggatu gi war nga cee. boo xoolee xam ne dafa am maa ngi ci forme. <laughs> biir bi dellu na et puis commencé waa ji ak yow a waaw baax na ma tax a wax. garaawul si xam nañ ko. jaajëf waaye Pape Malick jaajëf wallaa la. borom jam si jeex dugaat di ngeen a ndax moom suñu jotaay xibaar 12h euh, lay doon ci kàllaamay nasaraan 13h ci kàllaamay ko ci 89.7 Zik FM pàcc mujj bi soxal bi la.